wallaay ndeysaan gars yi son dafa bëgg Pape Matar Sarr ndeysaan xolalam defati rek ca Pape Matar après ba mu ko tàggee tàgg yu neex yooyu nga xam ne neex na sénégalais yëpp salaamaaleykum amateur de foot yi ah, nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur sant balaa ñoo dugg ci son ak Pape Matar Sarr moomee waxoon naa leen ko tey suba ñi nga xam ne demaguñu votel ma pour ma jël meilleur influenceur ci année bii 2023 plus influenceur def leen ko pour def ko nag sa yomb waaw pour wooteel ma yomb na trop maanaam bu dee yaa ngi may seetaan TikTok wala nga may bu dee yaa ngi may seetaan TikTok lien bi mu ngi ma teg ci sama bio TikTok maanaam soo duggee sama compte TikTok di gis benn lien foofu ma lay bind lien euh, Pulse Influence euh, boo ko bësee da lay yóbbu directement site bi nga wër sama tur foofu noonu Pa Assane Gueye Lébu nga bës ci sama tur ba pare bës voté. noonu nga may votalee bu dee tamit yaa ngi Instagram di ma ko seetaanee lien bi tamit mu ngi sama euh, bio Instagram foofu laa ko def ci suuf boo ko basee rek mu yóbbu la nga dem voté ci jàmm ak salaam mu ngi yi dugg ci kooku di Pape Matar ak Son gis mu tagg ko Son ne Pape vraiment bëgg na ko xaritam la te it gone la boo xam daf ko doon xoolee moom ba muy doog a ñëw foofee ca Tottenham waaye it yamaatuñ foofu gis na ne dafa discipliné te day jàppale club bi moo tax mu rapproché ko neex ko day gis ci boppam Pape daal waaye it yamaa yamul foofu Pape dem na fii ñëw fi équipe nationale Sénégal son dem foofee jokkore ñoom ñaar ñu namante son nag di woote di xool ci Pape ci loolu la nekk jamono ji nag lii média anglais ñu ngi ko commencé partagé mu ngi noonu mu doon loo xam ne nii vraiment lu rafet la ñu gis ab étranger jàpp suñu joueur international sénégalais gone gu suñu chouchou bi suñu pépite bi vraiment di ko nemmeeku di ko taxaw bu baax a baax mu doon loo xam ne nii lii lañ soxlaa Pape mën naa intégration bu baaxee bu baax foofee ci Tottenham yàlla na gën a baax nag son joué na ci rôle bu am importance maanaam da koy accueillir defal ko jàmm ak salaam Pape Matar sax muy doon leeral que ni son dafa doon nit koo xam ne même buy waxtaana mu parfois day day xam ne ne juum na sax ci anglais bi wala mu def ay erreur et tout mais du ko du ko du ko du ko daf koy comprendre accompagner ko à ce que dafay nekk à l'aise quoi mu doon nit koo xam ne da nga koy xool xam ne ni kii dafa yaru dafa baax muy son moomee asiatique nag ils sont comme ça macha allah alhamdulilah ba nga dalee ci ku mel noonu yow Pamatar yàlla yàlla gën a def jàmm ak salaam ngeen gën a jiboo mu ngi noonu gars yi des pour Coke di son ak ñun ni ngay toppatoo suñu rakk ji moom suñu mag ji suñu rakk suñu xarit suñu frère neex nañu bu baax a baax jàmm ci yéen gars yi